asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ginnaaw bu ñu santee yàlla julliwaat ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul xadim ñoo ngi ñaanalaat sëriñ tuba cheikh mahamadul muntaxa sunu borom gën ko fay yàggal gën a dooleew gërëm waaye ñaanal sëriñ abo baraka ibnu cheikh mahamadul fadal suñ borom may ko fan wu gudd lool wa ànd ak wér gu yaram te defal ko mbooleem njabootu cheikh mahamadul fadal gépp mbokk yi noo ngi am mbégte toog fii ci jataay bi nga xam ne baaxoo ngeen di ko gis at mu jot suñu duggee ci weeru rajab ba déclaration bàyyi ko ca kër cheikh Mahamadul Fadal mbake cheikh Mouhamadul Amin Baara moom Serigne Touba cheikh Mahamadul Fadal mi nga xamante ne bii moo waxooloon boppam ci làmmiñam na ña ko moomoon dem na ñi ko bokk ñoo fi des luñ bokk lu ne nag des ko war di waxtaane moo tax ñu toog ci kanam xalifaam bu tedd bii di Cheikh Mouhamadul Moustapha yi ñaan sun borom yàggal ko fi lool te doole ak wéram mu dend ak rakam Serigne Fallou Galas moom soxna Amina waaye dend ak Cheikh Mouhamadou Mourtada ñu fas yéene yëkkati ay kàddu nag ci bis bi nga xam ne ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké na mu tànnoon dëkk ak sëriñ fàllu ci xolam dëkk ak sëriñ fallu ci jëfam noonu la tànn ba muy dem àjjana it mu tànn bisub Cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñu fab léppam nag dugal ko ci weeru rajab fab léppam dugal ko ci bisub Cheikh Mamadou Fadal ñaanam googu nga xam ne ñi ngi ko doon séentu ren ji mu waroon a nekk le neuf incha allahu rabbi moo tax ginnaaw bu ñu déggee kaddu yi bàyyi ko ci kër Cheikh Mamadou Fadal sëriñ Moustapha fas yéene yëkkate ay kaddu jëmee ko ci mbooleem taalibe yi nga xam ne ñi ngi déglu ndigalul kër gi waaye nag jëmee ci mbooleem xarit yi ak bokk yi ak wëlëre yi asalaamaaleykum wa rahmatullah wasalaatu wasalaam ñu ngi sant yàlla di julli ci sanga bindeefi Seydina Muhammad jaajëfal xaadimu rasul tàmbali suñuy wax ci pas-pas mooy tënku ci ndigal suñu xalifa cheikh abul baraka dafa dem ci kilifaam mu jox ko ndigal ndigal loolu mu ko jox nag ci lañ fas yéene tënku muy bis bi nga xamante ne bi daanaa ko wooteel Cheikh Mouhamadul Lamine te ñu wax ne nañ ko tënkee nañ ko defe woon daaw moo waral ma ne naa jël kàddu ngir leeral fas yéene suñu tàmbuli ak suñu mujjantal yëpp di doon digal ñu fas yéene képp koo xamante ne bii euh, yaa ngi tënku ci sama ndigal te bokk ci kër gi digal naa la bu bis bi dikkee nga jàng alxuraan sikar salaatu ala nabi jàng ay xasida def ay bernde euh, loolu daal mooy ndigal li nga xamante ne bii moo jóge woon ci suñu kilifa ma ne naa ko jottali mboolem dongo yi euh, di ñaan yàlla li nga xamante ne bi moo xew ci réew mi it yàlla jële ko ci àdduna bépp ci barke sëñ Falilou barke Cheikh Mahamadou Lamine mi nga xam ne mooy sunu yaakaar àdduna ak alaxira di ñaan yàlla it yàlla yokk fee mu nekk yàlla dolli ko ay xéewal gën ñoo taas ci barkeem saxal ñu ci lislaam saxal ñu ci ak jub ba lépp luñ yée luñ ko yéenee defal yàlla man loonu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah يجر بالمنى والعود ما زال أحمدا